aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah xam naa la sëriñ Babacar si waxoon rek radiyallahu taala anhu te waxoon ko ci wàllu Seydil Xaaji Malik si ahsanta atqanta akmalta aljamia wa qad ankaxta min amalin waaye ma sha allahu ustaaz yow tam ñu ngi lay wax ni la axsanta atqanta akmalta aljamia moom kàddu yi mat na te matale na ndax sëriñ cheikh laa déggoon radiallahu taala anhu mu wax ni sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu nee na bu ñu daan jàngale wa laqad wassalna lahum alqawl laallahum yatadakkaruun nee na sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu dafa daan wax ni alqawl alladi huwa alqawl nee na sëriñ Babacar daf daan wax ni lu jarta wax ku ko yóbbu ci rajo bi rek yaa tooñ ñépp mu ni waaye lu jara waxit ku ko yóbbuwul ci rajo rek yaa tooñ ñépp moo tax bu ñu nee assumtu xukmun seen maam ni nangu na ko waaye wan nutq it bil xikami thaniyati laazimun kon nag tabarakallahu kàddu yi ngeen fi yëkkati yépp yal na yàlla defal ñu udnun waaxiya ba ñu bokk ci alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana sayid cheikh ahmed tijani a ah, xam naa am na lu ma la déy rek li ma la déyoon sànq nga bàyyil ma ko xel maanaa xam naa li ma déggoon góor gi wax ko rek wax ni jigéen mu ni bu yaboo na déglu lislaam mu ni te bàyyi lislaam mu sédd ko ndax nit bala ñu lay sedd dafay fekk ki lay sedd xam sa valeur te boo gisee xadaarat yi nga xam ni ñoo jiitu woon alxadaara al islaamiya li ñu séddoon jigéen boo ko nattee dinga nga yëg ni mënuñu koo sedd ndax xamuñu cëram waaye lislaam mi xam cëru jigéen nag nga xam ni lum ko war wax wax na ko ko lum ko war a defal defal na ko ko ndax bi yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yastaftinuunaka fi nnisaa qul illahu yuftikum mu mel ni nag la góor gi waxoon ñi lislaam ci ñett la tudd jigéen nee na tudd na jigéen ci nekk gi mu nekk nisfu rajul mu ni tudd na jigéen mu ni par ak société mu ni waaye tudd na nag almaratu ma allah mooy li nga xam ni suñu wayjur indi na ko léegi te mooy l'intégration de la femme à la vie mystique maanaa borom bi subhanahu wa jàngale na ni lu góor mën a incarné ci digganteem ak moom jigéen mën naa incarné lu ni lu ni toll wala mu incarné lu ko ëpp te bokk na ci fi ko borom bi subhanahu wa taala ci ñim ko jàngale mooy jigéen ju ñoo wax saydatuna Maryam xam nga na Maryam bi ko yaayam ëmbee mu di na dafa am yéene bu mu dawal rabbi inni nadart laka maa fi batni muharraran fa taqabbal minni innaka anta samiu alalim ndax saydatuna xanna dafa wax borom bi subhanahu wa taala ni ko li may yëg ci sama biir bés boo ma defalee mucc séddee naa la ko waaye bi mu muccee Maryam Maryam di jigéen dafa mel ni yaakaaram dafa tas ndax baat ba mu wax inni wadaatuha untha waaye borom bi subhaanahu wa jàngale ci ñaar bu njëkk bi xan na mi ko wax la ko jàngal jàngal ko ni ko yow ki nga mucc góor la walla jigéen du safarata ni ko liy safarata mooy yaa ma waxoon ni ma rabbi inni nadart te fal yuufu waaye bu ñaareel bi nga xam ni borom bi subhaanahu wa jàngale na ko ci mooy problème mu góor ak problème mu jigéen posé pour moom li nga xam ni moo posé pour borom bi subhanahu wa taala mooy problème mu taxawaay ndax man amila saalihan min dakarin aw untha wa huwa mumin fa la nuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum bi axsani ma kaanu yaamaluun moo tax yéene ba xan na mottali ko inni sammaytuha Mariam tur ba wa inni uiduha bika wa dhurriyataha min alsheytaani arrajim waaye borom bi subhaanahu wa taala boo ko séddee te sédd ga di dëgg yàlla séddoo te bu séddoo séddee moo tax fa taqabalaha rabbuha bi qabulin xasanin muy séddoo ga waaye wa ambataha nabatan xasana muy sédd ga mu mel ni moom saydatuna Maryam ci benn aaya borom bi subhanahu wa taala daf ci tudd ñaari baat ci wàllam mooy yaa maryamu inna allaha astafaaki wa taharaki wa astafaaki ala nisaai alaalamin kalimatul istifa yàlla tudd na ko ñaari yoon ci Maryam waaye gis nga ñaari istifa yi seen dimension tolloowul ndax istifa bu njëkk bi inna allaha stafaaki yaani anti mimman istafaha allahu min annisa moo tax istifa bu njëkk bi présélection la waaye istafaaki nag ala nisaa il alamin du présélection waaye sélection la mu mel ni nag baatu istafaaki ala nisaai alaalamin war nañoo xam lan moo sédd saydatuna mariam cër boobu ndax xam nga ci biir maratib yi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy baaxe ay jaamam am na ci martaba bu ñoo tuddee al martabatu siddiqiya nga xam ni daf di martaba boo xam ni lal huway naa tanaaluha ndax ñeenti keno ñoo ko yanu keno bi moom lañoo tuddee gaayatul ixlaas keno bi moom lañoo ñoo tuddee muntaha sidq keno bi moom lañoo tuddee kamalul muraqaba keno bi moom lañu ñoo tuddee tamaamul mushahada il faut nga dépasser ñent yi soog a attendre ci almartabatu siddiqiya borom bi subhanahu wa taala tudd na ko ci ay yonent wadkur fi lkitaabi ibrahim innahu kaana siddiqan nabiya wadkur fi lkitaabi ismail innahu kaana sadiqa alwaad wa kaana rasulan nabiya ak wadkur fi lkitaabi idris innahu kaana siddiqan nabiya wa rafanaahu makaanan aliya gis nga ñii li ñuy nekk-nekk ay yonent fa ñu jaar ba décroché al martabatu siddiqiya saydatuna mariam li muy nekk-nekk jigéen fa la jaar ba décroché al martabatu siddiqiya moo tax wa mariam abnata imran allati axsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kutubihi wa kaanat min alqaanitin ak wa ummuhu siddiqa waaye almartabatu siddiq yi nag bu ñu ko ñeme woon euh, dinañu wax ni am na risque ndax ñeent yi ñu tudd mën na la faa waaye bu la fa xasee ba ci ba yóbbu nag la ca des épreuve yi rekk la ciy jotale alif lam mim axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yalamanna fala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna alkaadibin moo tax al martabatu siddiqiya nag boo ci toogee yiw bu ne dina la gane si waaye dis bu ne dina la gane si moo tax saydatuna Maryam ba mu tooge ca almartabatu siddiqiya ca la ëmb Isa coowu ëmb Isa judd ñi xam di wax ñi xamul di wax ba alquran dikki leeral ko wadkur fi lkitaabi Maryam id intabadat min ahliha makanan sharqiya fattaxadat min duunihim xijaab fa arsalna ilayha ruuxana فتمثل لها بشرا سويا قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر walam aku bagiya qaala kadaliki qaala rabbuki huwa alaya hayin walinajcalahu aayatan linnaasi wa raxma wa kaana wa raxmatan minna wa kaana amran maqdiya fa xamalathu fantabadat bihi makaanan qasiya fa ajaa'aha almaxaadu ila jidci nnaxla qaalat yaa laytani mittu qabla haada wa kuntu nasiyan mansiya فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا شنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا fa atat bihi qawmaha taxmilu qaalu ya maryam laqad jiti cheyan fariya ya uxta haaron maa kaana abuki mraa saw wa maa kaanat ummuki bagiya fa ashaarat ilayh qaalu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya qaala inni abdullah aataaniya alkitaab wa jacalanii nabiyan wa jacalanii mubaarakan aynama kunt wa awsaani bilsalaati walzakaati maa dumtu xaya wa barram bi walidati walam yajcalni jabbaaran shaqiya kon nag wassalaamu alaya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubaatu xaya dalika isa bnu mariam waaw mu mel ni boobu saydatuna mariam mi ngi ci almartabatu siddiqiya almaratu it ma allah suñu ñaari wayjur yi jiitu indi nañu sayyidatuna Khadija radiyallahu anha xam nga sayyidatuna Khadija dafa am lu sayid Cheikh Ahmed Tijaan si radiyallahu taala anhu waxoon wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na borom bi subhaanahu wa taala nee na daan na tollu fenn ci jamono borom bi subhaanahu wa taala ni ko sa courage physique lay testé nee na waaye daan na tollu fenn mu ni ko sa courage moral lay testé waaye courage moral boobu nag bu ko borom bi subhaanahu wa taala daan testé ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ki ko ci daan dimbali mooy na xadija radiallahu anha ndax xam nga saydatuna xadija dafa am ñetti taxawaay ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa ñaari situation yoo xam ni bu ci nekk budul woon moom keroog diis diis mën na am ndax alifa nuska ustaad indi na ko léegi walibadata walxalwata tiflan wa hakada nujabaau moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba muy jot waxyu euh, Seydi El Hadj Malick indi na ko wa kaana bad'an ala xubbi lxala ila an shaa fi lgaari ruuxu lqudsi lam yanami wa gattahu li buluugi ljuhdi qaa'ilahu الفقر وقال له ما ذاك من نظم إذ كرر الغط مرات يقول له اقرأ باسم ربك أنت الخاتم النظم وآب مرتعدا مما يرى فزعا وقائلا زملوني ترفع غممي وهي خديشة سكنت بالقلب قائلة لم يخزك الله في الدارين لا تكمي yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu situation doy waar doy waar li suñu wayjur soxna Roqaya wax ni góor gi wax na ko ni jigéen ah, bu àddoo solution war na dal war na am xel war na dal yaakaar war na dëgër waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la ko yàlla defaloon ci saydatuna Xadija ndax situation lum delicat délicate bu ñëwee Sayyidatuna Xadija ni ko yàlla du la wàcc yàlla du ko wax na ko ko keroog ca ba muy jor waxyu waaye yàlla du la wàcc wax na ko keroog ba nga xamee ni waqad aral waxya xaqan baadu maftaratun miiman wa kaana arrida fi gaayati alwikami yaalu ljibaala muridan ramya juthatihi xusnan ila al ardi law la ruuxu du raxami bokk na keroog ca la saydatuna xadija dalale yonent bi mooy yàlla du la wàcc bi ci desit mu am lum dimbalee yonent bi mooy saydatuna xadija moo fexe ba jël kër yonent bi def ko daara ndax bés bu nekk daan na fa togg loo xam ni wóor na ko ni lii ëpp na waa kër ga waaye ngir ñi nga xam ni yaakaar nañ yonent bi te seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom ñépp mën di daje kër yonent bi dem nañ ci ba kër yonent bi mujj nekk site de rencontre te loolu ki ko jëmmal mooy saydatuna xadija bi ci desit mooy daray saydatuna xadija alalu lislaam mësu ko fekke ndax ñi nga xam ni daan nañ leen jàpp di leen def ay jaam moom saydatuna xadija kum ci xam jël na alal jënd la goreel la bàyyi la ci wetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax keroog moom saydatuna xadija bi mu wuy jee boroomam ñu tuddee at maamul xusn waaye nag almaratu it ma allah bokk na ci ñi ko incarné mooy jigéen ju ñoo wax saydatuna fatima xam nga saydatuna Fatima dama mës dégg ci Serigne Cheikh radiallahu taala anhu mu wax ni jigéen mësta mel ni saydatuna Xadija ci boroom kër mu ni waaye saydatuna Fatima jigéen mësta mel ni moom ci wàll yépp ndax xam nga bari na koy wax mu lay wax cofeelu yonent bi ci Fatima waaye ba tey waxaguñ lu sabab cofeel googu ndax dama dégg ci góor gi mu wax ni saydatuna Fatima mu ni li waraloon mu sore ci yonent bi sallallahu alayhi wa mooy dafa nekk jigéen ba pare yonent bi yëg ci moom personnalité yonent moo tax moom saydatuna Fatima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësta nangu mukk fekk saydatuna Fatima muy nelaw sëriñ Cheikh ne na bu ko fekkee muy nelaw mu ni yelleen ma ndax moom ruuxam jaamu yàlla koy dundal moo tax daf di jigéen waaye lu yonent bi sallallahu alayhi wa def ci axya dalaama ila an ishtakat qadamaahu durra min warami saydatuna fatima def na lu ni toll moo tax moom saydatuna fatima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li mu koy jur jur yépp yàlla féete woon a Fatima ba yonent bi sañul tëb maye ko lu dul ci ndigalu yàlla ndax gis nga Seydil Xaaji Malik di nettali inna albatula bi waxyin kaana zawajaha xayru lwara summa al faris albuhami min baadi ma radda siddiqan kada umaran te boobu wallaytu ma xaaza illa dirhami niami xam na ni sayidna abubakrin siddiq radiallahu anhu ñëw na yonent bi ni ko jotuma ndigal sayiduna umar ibnu alxataab ñëw na yonent bi ne ko jotuma ndigal sëriñ cheikh nee na keroog bañ ci tuddee sayidna ali nee na sayidatuna fatima jooy na jooy yu metti nee na ndax xarit yi dañ ko wax ni ko ali amul lum lekk te bu dee aboubacrin mën na omar mën na kon xoolal ci ñaar ñi kenn te nga bàyyi ali sëriñ cheikh nee na yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee benn baat bu gàtt la ko wax nee na ne ko waxuma la ni force la nga sëy ak bakar waxuma la ni force la nga sëy ak Omar wala force la nga sëy Ali waaye nag yaay tànn bu fekkee diinaar ngay tànn Aboubacar a ngoog Omar ngoog waaye bu fekkee sharaf ngay tànn nag Seydina Ali mi ngi noonu mu ni ko amul xaalisu poche waaye bu ngeen àndee yéen ñaar ba àdduna di tukki ku fi tekkeeti ci yéen ñaar lay jóge moo tax bi leen yàlla boole seen couple ñoom ñaar nekk maraj al bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaxun laa yabgiyaan fa bi ay alaai rabbikuma tukadibaan yuxraju minhuma alluluu walmarjaan te suñu góor gu tedd gi ci déggam maraj al bahrayni yaltaqiyaan mu ni bahrayni ñaari géej ya nee na mooy ali ak fatima yaltaqiyaan waaw baynahuma barzaxun laa yabgiyaan barzax ba mu ni moo di yonent bi sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yuxraju minhuma lu'lu'u wal marjaan mu ni lu'lu'u bi mooy sayidna xasan marjaan bi mooy sayidna xuseyn te am lu ko yàlla defal ci xasan ak xuseyn ndax xam nga dafa am ñoo xam ni seen dégg ëpp na dama dégg ci suñu góor gu tedd gi mu wax ni seydatu sayyidatuna Maryam mu ni am na nubuwa mu ni sayyidatuna Maryam am na nubuwa mu ni waaye comme li jigéen di disposé góor du ko li góor di disposé jigéen du ko disposé mu ni moo tax ñu jël wa Maryam mu ni transposé ko ci Isa ibnu Maryam mu ni waaye saydatuna Fatima nag mu ni qutbaniyatul uzma nee na bi nga xam ni moo nekkoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu indi ko ci Fatima waaye transposé ko ci Xasan ak Xuseyn moo tax qutbaniyatul uzma bi nga xam ni moo nekkoon ci Seydina Xuseyn bi nga xam ni mooy marjan bi moom la Seyd Cheikh Abdul Qadir al Jilani doon lu'lu' bi di Seydina Xasan xutbaaniya bi nga xam ni moo nekkoon ci moom moom la sëtam Cheikh Seyd Ahmed Tijani donn waaye comme yonent bi moo ni ko woon nag yaay xool dinaar wala sharaf saydatuna Fatima tànn sharaf yàlla génne ca Seyyid Cheikh Ahmed Tijani mu génne wala ñetti sharaf sharaf tiini sharaf ilmi ak sharaf diini sharaf tiini xaytu intisaabuhu li fatimata alzahrai binti muhammadi maa sharafi alilmi min xaytu kashfuhu an algaamidati alxujub fi kulli maqsadi ila sharafi ddiini xaytu tariquhu tariqu damaani alhaashimiyi almuayyadi mu mel ni nag jigéen ñu tedd ñi fa ñu jaar ba am li ñu am jigéen ju ñoo wax soxna ko di Adama Aïcha jaar na fa ba am abu diini wa taqwa axu sidqi wal huda wa lam yarda ma laysa alali anhu radiya mu di cheikh alxaaj omar il fuuti jigéen ju ñoo wax soxna fa waddu wele jaar na fa ba am ki nga xam ni moo di waliyun manaara diini alaahu rifaatan inaaratuhu amad umuma muhammadi mu di seydi alxaaji malik jigéen ju ñoo wax soxna roqaya njaay jaar na fa ndax dafa xëy rek ñëw ni Seydil Hadj Malick digal ma Seydil Hadj Malick ni ko li ma lay digal mooy yaa nuzhati qurrat al aynayni yaa amali tawakkali lil ilahi xaaliq al jabali wal taalami anna hadi daara faniyatun wa kulluna raaxilun tuuba li mumtathili aafaaki aafaaki rabbun la sharika lahu xayun samiun basirun duna ma muqali wa xaaliliihi wala tuxaalili abadan gayra alilahi wa gayr li gayri llahi la tamili la tastaciini li gayri llahi afdali man qad istuciina bihi wal gayru du fashali Seydi El Hadji Malick ni ko booy wéeru wéerul ci yàlla mooy ndax ndax mooy ni'mal wakiil booy dimbandikoo dimbandikool yàlla booy wéttaliko wéttalikool yàlla ndax keneen koo wéttalikoo te du moom bés dina ñëw mu wéetal la mbaa nga wéetal ko mu xëy ni Seydil Hadj Malick utal ma njëkke Seydil Hadj Malick ni ko yaa qurratay aynina tuuba ila allahi littaaibiina karamatun min allahi mu ni ko bu fekkee njëkkee nga bëgg jëlal yàlla def ko muy sa njëkke ndax Serigne Cheikh nee na nee na ñaari junneeg sër la mën a joxe mu ne waaye yàlla nag la muy joxe mooy la Seydil Haaji Malik tudd abnaa alayna aqmaaran li qawmihimi tax mu jël terrain wam ba mu gënoon a cherle jox Seydil Haaji Malik ni ko joxal ma kii sama njëkke waaye Seydil Haaji Malik dégg na la mu ko wax ndax terrain boobu ca la ko tabaxal jàkka tabaxal ko fa zawiya ñu fay naasiril xaq bil xaq di fa jawharatul kamal moo tax yàlla mañ ko séddee woon jox na ko koo xam ni nag nuuru abihi fiihi wa nuuru abi abihi wa murshidihi ka xaali cheikhi wal gedewi gaalin a'immati diinina wa mujaddidihi wa uctiya min abil abbaasi nuuran wa nuuru lmustafa qad yastafiihi wa man lam yastadi bi sanaa'i minkum سفيه يا له أو كالسفيه تربى بالمكارم وهو طفل قليل ما تتابع من سليه ترقى للعلا والمجد حتى غدا كأبيه أو كأبي أبيه مدي سرين بابا كرسي رضي الله تعالى عنه فنجار jaar jigéen ju ñoo wax soxna astukan jaar na fa incarné la saydatuna nafisa waxoon ndax saydatuna nafisa buusri moo ko waxoon warifti sifaati almustafa wa ulumahu wa fadlukuma lawla nubuwatu waaxidu soxna astukan incarné la même chose ci digganteem ak sëriñ Babacar moo tax moom it yalla jox ko chamsul maarifi wal maani ayatun fi lfahmi wa tabliigi saala wa jaala ki nga xam ni moo di dami su sajaya xaatimun yowma saxaa'i yusarribu l amwaala mu di seen maam Seyyid Cheikh Ahmed Tijani si alqutbul maktum wal barzaxul maktum mu mel ni nag ñoo wax soxna Safiya jaar na fa ba yàlla jox ko daa'in murshidin jaddada al asra bi jaamiatin adxat biha kulluna yaqra waaw mu mel ni nag soxna Safiya moo ko waxoon ni ko ku la bañ mën na fee taxaw waaye ku la gën dootu fi taxaw mu mel na nag loolu ah, yàlla defal na ko ko ah, ndax am na loo xam ni ku gis moom góor gi ah, la maam Ousmane waxoon ni soxna Safiya bu nubuwa jeexul woon mu jur yonent xëy na nubuwa jeex na nag waaye jur na koo xam ni lu yonent yi daan def ci seen nitu jamono def na ko ci ndawu jamono ci jàngal leen ak orienté leen waaw moo tax nag kon la nga xam ni góoram gu tedd ga waxoon na ko ko ni Moustapha am na mérite ndax am na loo xam ni ku ko def ci ndawu jamono am na mérite mooy ndaw ñépp ñu fexe ku ci juddu mu nàmpal la ci rabbun tabaraka waaye ñu màgg mu indi beneen te mooy jox ñu at mim la naa waaw waxfir charaimana taqdi xawaaijana yaa waasi'a ruxumi ak loolu ku xam bari na ku koy jàng te xamuloo fa ko Seydil Hadji Malick jëlee fa ko Seydil Hadji Malick jëlee mooy yowma laa yuxzi llahu nabia walladina amanu maa nuuruhum yasaa bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluuna rabbana admim lana nuurana waxfir lana innaka ala kulli cheyin qadir te tey ndawu jamono ngi koy woyantoo kon nag la Serigne Cheikh ñaanaloon turandoom lañ koy ñaanal ya sayidi yaa sayidi yaa sayidi jazaka rabbuka am banil awtaani waaw ah sayid Cheikh Ahmed Tijani xam naa am na lu ma la waxoon da dafa mel na nag danga ma yërëm ndax man nee la wax ndax man nee naa la waxtaanuma damay modéré ma ni la waaye bu yaram bi tàngee rek xam naa sama bopp kon nag moo tax dee ma dimbali di ma kobos rek waaye waaye dafa mel ni dama yërëm waaye nag si lépp sa mbaax la man mi suñu jur bi Seyyid Cheikh Ahmed Tijani li muy nekk nekk woy jur suñu woy jur bi soxna Roqaya si boo teewee kenn ci ñun warta yëkkati kàddu ndax la ma la waxoon rekk ca Colisée de l'éveil euh, loolu maam fu ñu toll dañ koy feddali ci suñu diggante ak yow la ma la waxoon ni la waxuma la man waxuma la Serigne Babacar si ma ni la waaye képp kuy mustarchid boo waxee yóbbaale nga ko loolu nag fu ñu tollu dañ koy gën a feddali lii nag sa mbaax la ak sa yaatal kon nekk soxna yi dafa mel ni maam yaa ngoog référence yaa ngoog kon fata baax na in lam takunna in lam takunna mithlahunna ndax inna tashabuha bil kirami ribaahu xam naa kon nag ñu jox sama yaay a ah, la présidente soxna Fatima mu sànni ci kàddu yi mu ci sànni